dëgg yàlla di euh, di masaw waa Cambérène ci situation yi fi nekk en même temps aussi di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax dafa am benn euh, mordom bu fi am muy xale bu ndaw ci loo xamante ni à cause euh, taw yi moo tax mu génn àddina ndog ndogalu sulu borom ñu nangu ko nag di ñaan fa mu nekk yàlla ko yàlla xaari àjjana. taw mee metti bari ndox mi heure bi mu taw ñi ñaa ngi nelaw Cambérène nekk benn du cuvette boo xamante ni pente bi mu ngi jugee police bu parcelle foofu la ndox mi di jugee di ñëw di dugg ak Cambérène ñu interpellé on a parce que lii ñu ngi koy dund depuis 2005 ba léegi c'est pas la première fois daaw amoon na moor am bu amoon. bii tamit mu amaat moroom loolu nag moo tax nag tey population bi yëpp ànd ni tey balaa ñuy jóge fii wala balaa leneen di fi am autorité yi dina ñëw wax ak doomu dëkk bi defar li nga xamante ni mooy problème yi Cambérène amul assainissement déjà assainissement bi nu démarré di ko liggéey dara baaxu si lu ci bëri moo ko moom moo ko di causé Satar arrêté na projet bi kenn déggatu leen kenn gisulul leen donc nag boobu ba léegi sànq la fi préfet jógee ak commissaire mais day am ba jàll doo fi gis benn autorité mais lii dafa metti dafa metti ñi ñaa ngi nii tey amuñu fu nu fanaan amuñu fu nu nangam ci loo xamante moo noon na ñàkk mais pourquoi pas Azoroute tali bi mu jël pente dugal ko ak Cambérène mais ñu def ay kii ay eaux pluviales assainissement eaux pluviales dagay avaloir ndox mi balaa ak si biir Cambérène aussi mu wàcc foofu dem géej mais ñun fii géej gaa ngi fii même pas un kilomètre ñu am ñu problème inondation loolu loolu pour lan la géej gaa ngi fii tout près donc war nañ mën a dépasser loolu. kon mën nañu wax ne victime waa Ageroute ngeen mais bien sûr. est-ce que aussi population bi nekkuñu ci parce que pour tabax da ngay bàyyi sa gravaay ci mbedd bi te gravaay na ni mën a ci loolu ci ci loolu tamit mi ngi ci ndax euh, nit rek sooy wax da ngay wax dëgg li am aussi dinañ def sensibilisation xamal ñi ñi aussi gravaay yi ni sotti ci mbedd yi loolu day causer problème ci réunion bi rek ñu ngi ko fay wax. loolu aussi il faut que ñu bàyyi ci xel Gravats du pour mbedd Cambérène musul xam affaire u temps musu ko xam kon tey bu ñu ñëwee ba vingt et e siècle ñëw fi jamono fi nga xamante ne tey vraiment dangay wax da ngay wax développement ñu ñu ñu am problème assainissement donc aussi nañu xoolaat loolu ñuy wax ni aussi fondation yi ñuy tabax Gravats yi ñuy tas ci mbedd yi nañu ko bàyyi ngir mën a dimbali suñu bopp dimbali suñuy dëkkandoo parce que gis nga fii ñu ci bari amaana seen kër inondé wul de familial donc loolu aussi nañu ko bàyyi xel mais nag ñu ngi interpréter à l' état Cambérène sonn nañu te li nu musa te li lépp état moo nu koy teg donc nag seen i engagement envers Cambérène na ngeen koy respecté na nu loolu dimbali nu lii ci mbënd bi vraiment. d' accord njëlbéelu wax bi yaa ngi wax ne am na moo d'homme est ce que mën nga ñuy waxaat nan la mbir mi demee ci mu demee soo demee du tëli Ndiaga Mbaye aussi am na benn regard buy jóge à l'unité neuf mais regardu ONAS la bu tawee dañ koy ubbi doo xam fan la ndox mi jugee. ndox moomu day dem day def benn vitesse boo xamante ni kër dem si yàllu Seydi Kane lay jaar wàcc Njaga Mbay am na benn euh, du Cambérène zone ba la ñëw reposé wu foofu léegi bi mu ñëwee ndox mi commencé yéeg parce que du tali la du kër yi ni dëkkoo dafa xat commencé dugg seen kër ñoom yeewu pour éviter ndox mi dugg mu fas doo ak miir bi miir bi ndox mee këpp doole daanu ci koom mais loolu dafa métti ci loo xamante ne mënoon a ñaax benn jeune boo xamante ne même pas amul vingt cinq ñu ngi nangul nangulu yàlla yàllaa ko dogal mais nag ndimbalu ndimbalu euh, euh, euh, li li wolof di wax jaam am na da nga koy sabablu am na am ne boo ko boo ko sabablu lee dogal du la ci fekk donc nag vraiment loolu métti na métti na métti na trop trop ñu ngi déplorer loolu ONAS ak Ageroute causé nañu ba pare VDN bi ñu ngi def ñu ngi defaat beneen pente bu jógee si Elton bi ñëw ba Cambérène te amul benn déviation te depuis lors ñu ngi leen di alerte donc problème yooyu aussi nañu koy jël tenir ko en compte xam ni nit ñun waa Cambérène sunu droit la ñuy laaj ni ñuy laaj li ñuy revendiquer sunuy droit la loolu chaque jour ñu fàttali ko gouvernement bi fi nekk donc nag loolu vraiment moom la ñu amoon di ko wax di naqaru li fi am waaye nag di sant ndogalub yàlla ci li xaw waaye nag nañu jël au devant nee nañ leen nag balaa ñuy dindi lii mesures yi ngeen wax ni leen koy jël pour bu taw amaatee parce que taw mën na amaat météo nee na fii ak demee mën na tawaat léegi bu taw amaatee dèjà li ñu liggéey nii day yàquwaat yan matukaay la ñuy jël am nay oto pompe yu ñu wax nanu ko indi suñu ko indee ba gars yi teg seen ba parce que danoo yàgg a waxta ko jëfe gars yi danoo yàgg a waxta duñ ko jëfe mais bii nag sans du dootul jàll nanu indi mesure yooyu ñu gis que ñu xam ne fii bu tawaatee au moins solution dina am ñuy door a bàyyi tali bi mu dem. maa ngi tudd euh, kenn bëggul loo dëkk fii Cambérène lii nag juróomi at yu ne. man na ëpp fukki at ak teg juróomi at yu ne lii dinañu daal desewuñu wuñu këyitu juddu dese wuñu carte d'identité dese wuñu meuble dara kër gi dunda desatu fi ñuy ñaan ci état bi bu dee am nañ mën nañ ñu dimbali jëlee ñu fii ñu ne ay at ñuy dundali sonn nañu jeexal nañu tàkk juróomi at yu ñu dajale ak lu ñu mën a dajale din bu taw bi ñëwee nii la kay def dindi ko ba mu set dese wuñu yëre dese wuñu alal dese wuñu lal yaa nge di siit dund baa ngi nii dund bi ñu Macky Sall la joxoon mi ngi nii gis ngeen deseetuñu dara añ yi waa koñ bee tibb añ joxuñu ñaari fan ñett juróomi at yu ñu dugg génn nañu lekk jeexal nañu tàkk ñu ngi woo état di woo Macky Sall di woo Marème Faye Sall comme jigéen la kom ñun ñu koy woo mu ñëw walluñu kenn musuñu fi fekk kenn musuñu walloo dara dara dara mat la yaa nga ne musuñu nu wallu musuñu am ndimmal jeexal nañu tàkk Marème fay Sall nag jigéen nga ñuy jigéen ñu lay woo nga dimbali ñu jàppale ñu mu bañ a mel ni ñu fi nekkoon amuñu dara ñoo ngi si kat kattanu yàlla yoruñu dara xool fii ba fii quatre heures du matin ba léegi nelawuñu ñu nag suñu doom yi ngi soluñu daal amuñu mbuba amatuñu daal amatuñu kayit sax reseetu dunda bi ñu joxoon lépp a ay at ñu ko dund ku fi ñëw da ngay bind wax dem sa yoon kenn fekkuñu fii kenn fekkuñu ñi ngi kay woo nag moom comme moom moo fi nekk te jigéen la ñuy jigéen ñu di ko pour mu dimbali ñu te yàlla tax suñuy sëriñ da lañu gis suñuy sëriñ moom jug nañu ñëw waaye du keneen ku fi taxaw kon nag ñu ngi koy woo Marème fa Sall di woo Macky Sall walluñu si kattanu yàlla bàyyi laa ak rek man nii de sax dama tëddi ji woon liñ ma wax ne yéen moo tax ma wàccaat dañoo sonn quoi depuis une heure du matin ñooy fi nekk ci ndox mi te vraiment lii du première fois bi bi mooy quatrième fois mu am kër gi fees mel nii mais nag dugg ngeen si biir defe naa ne gis ngeen kër yi ni mel képp ku fi yàqalu ne da nga état fekkunu si maire fekkunu si autorité fekkunu si kenn fekkunu si yàqule nañ yàlla moo ko dogal nangu nañ ko mais li gënoon a rafet mooy nga am maire bu la ci mën a fekk wala nga am autorité bu la ci man a fekk et puis état daf ci am wàll parce que ndox mi police lay jógee police Parcelles di ñëw ba Cambérène ONAS def ci ubbi ay réseau muy sotti ndox mi ko xool xam ne ndoxu taw kese ndoxu ONAS ak lépp a ngi ci te du yoon àq baaxul te lu waaye lebal nit ci kaw suuf fii boo dee di nga te xamuñu ko nag waaye nañ ci bàyyi xel baax waaw vraiment daal li ci gën a métti mooy ñu ngi sant jeune dëkk bi waa dëkk bu loon ñoom musiba parce que ñoom ñoo ñu jàppale ñoo mën a suturaal ñoo mën a dimbali te loolu lépp ñu ngi ciy sant yàlla daal vraiment di sant euh, góor ñëpp jigéen ñëpp parce que ñëpp a taxaw bu loon ñoom dina métti parce que guddi la te mënoon na ay moor parce que amoon na moor fële bi si wuti am na ko si ñàkk ba kenam miir daanu si kawam donc loolu lépp tey dafa rafetoon ñu todd euh, autorité yi taxaw si wala maire taxaw si mais ñun amuñu maire man xamuma xamuma gisuma bi mooy ñeenti yoon ñu fees ñëwu fi ordre du ordre javelam du omam du daraam kon donc léegi ñun suñu dama suñu bopp préfet ñëw na fi sànq ak euh, commissaire parcelle xamal ko carrément ne ko bis boo déggee ne baare nan ñoo ko baare bis bu ndox mi duggee dañ koy baare oto du fi dugg te Cambérène gépp dañ ko tëj tey benn oto dugg fi te loolu nag ba état fekk si wala yoon fekk na si lu ñu am jël mais daal teg nañ ko si yar ak teggin mais daal ñu war a jàppale gis ñu leen kon nag état moo war a taxaw jàppale ñu te xam ne lii yoon géej gaa ngi zéro ndox mi mën na fi jaar dem géej kon Cambérène waruñu am problème mu mbënd nañ ñu respecté xam ne autorité leen ci dëkk bi lañ dëkk ci biir Ndakaaru leen dëkk ci dëkk bi lañ bokk fii dëkk Seydina Issa mais nañ jox cër état faale wu ñu jox ñu lijjantiwul mais am na fu muy gën a taxaw foo xam ne lakk ko fa war ma nga fa te kenn laaju ko ko fa kon donc moom nañu taxaw bu ñu mënul taxaw ñu taxaw suñu bokk te tak si fees bi si lañ jël suñu matukaay bu bët sëkk lu ñu yoon may ñu jël mais daal incha allah moom bii daañu ci taxaw lu ñu si fekk ñu mais daal def na ko bi mooy ñeenti yoon yoo xam ne at ay at parce que demi ah parce que loolu sax gi li gënoon rafet bu ñu dem si ñoom maire maire dëkk bi am na maire maire dëkk bi war na mën présenté wu xool li dëkk bi dund moom en tant que maire mu dox loolu ñiy woote ne autorité leen waroon na mën taxaw ñoom autorité yi dem ci dem ci état bi dox loolu mënuñu ko ñun ñi nga xam ne du ñu dara ñoo koy doxal suñu bopp. gis ñu kenn gis ñu kenn préfet fi ñëw tey ak commissaire parcelle ñu wax nañ leen nag li ñu xam kon donc ñoom ñi nga xam ne ay nit lañ comme ñun mbuba moo ñu wutale muy tey bu simmee tëri bi di turam lañ koy wooye bi ka papam tuddee commissaire bu simmee mbubaam turam lañ koy wooye bi ko papam tuddee bu ko solee nag ñu ne commissaire kee bu solee tëram ñu ne préfet loolu moo na wutale nañu xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk dëkk bi wax na leen na suñu soxla lu ñu yàlla dogal nag ñu xam ne loolu la la yàlla dogal ci ndox mi benn ay une heure daal la affaire bi song ñu lu ñu mën a def daal ba état bi jàppale ñu si ci ci ndogal bi waaw nañ ñu jàppale bu baax waaw Macky nag moom nañ ñu jàppale bu baax dimbali moom waaw lu yàlla dogal moom kenn mënu ci dara waaw boole koog mbas bi yëpp suñu kaw mënu mën a jàppale na nañ jàppale merci beaucoup. ah pendant dund nañ ci pendant quatre ans de plus chaque année chaque année nii rek lay mel ay réparation yoo xamee ni tout ça dépend des ci maire bi mais. du ñu def loo xamee ne après egg na ñu mën a dimbale daal na ñu dimbale noonu waaw ba léegi amul benn dimbal bu ñu waxee toujours day fekkante ak année yi dinañ dimbale beneen année prochaine bi mu fekkante waaw dañuy ñëw rek xool rek dem indi benn pomp ñu pompe ndox bi après bu ñëwee romb seen oto ni jeex na waaw te buñ leen fenee pour liggéey luy buñ leen fenee ci ay gox pour liggéey jàppale ñi ñi askan bi la waaye du loo xamee ni dañ lay fal après boo boo xasee ba toog ci chaise bi nga romb sa oto sali jeexal na ci nu def nu dimbale daal. mais ndox bi dem na dem na un mètre 50. kon mën nga lal baar bi yéeg na 1 mètre 50 waaw 1 mètre 50 kañ fu mu yéegee yàq na ba ay pend ay une jëm jëm fajar ndox bi arrêté benn yoon parce que vague bi dafa ñëw doole. kon mën na ne depuis ba léegi. depuis une heure bi lay wax nii ñun ñëpp ñu ngi xool taxuñu benn yoon. que ndox bi dafa jaxasoo courant bi ba kenn talul dara parce que ndox ak courant am ànduñu yooyu ngay njëkk daf mooy rawale sa bopp. benn jéeye amu si. waaw quand jéeye am na parce que am na ñu ci gaañ. ñu ci gaañ courant benn gi ay masse la yoo xam ne nii après bon da jàpp tuuti bàyyiwaat parce que crise bi day nekk ci biir. tiitaange moo lay jàpp ba doo mën a débranché dara man débranché wu ma dara débranché wu ma dara yëpp yàq yëpp fi yëpp ay téléviseur la bi ma yëpp yàqu yëpp dara parce que ku nekk tiitaange nga génne ba doota la génne bu sa bakkanee njëkk rawale nag sa si guddi ci ay une heure bi une heure tegee sept minutes ci la taw bi commencé mu commencé ñu nekk di ci tali bi di lijjanti foofu pour ndox mi bañ a dugg ci biir kër gi fi ñu yeewee xale yu góor yi ak fi miir bi daanoo benn la. kon miir bi moo daanu. miir bi moo daanu ndox mi dafa bari doole bari na vitesse bi bari na tiital nañu ñuy lijjanti fële pareegul mu daaneel fee ci la néeg yëpp a yàqoo fekk suñu doom yëpp a ngi tëdd ci suuf suñu doom yëpp a ngi tëdd ci suuf noonu lañu ñu woo sauver xale yi fat leen fii ci kaw teraas bi. ñun ñu des ci suuf dañu dem ba góor ñi ni jigéen ñi bu ñu wàccat ñu aj ñu ci kaw mais gis nga suñu bagage yi lépp a nii lépp génnewuñu benn yére benn yére génnewuñu ko dara man lii ma sol moo ma dese génnewuñu dara dara dara matériel yëpp yàqu nañ kër gi yëpp nag matériel bépp yàq yàqu na lépp a yàqu bii ba naga ni tëdduñu tooguñu togga sax defuñu ko ndax amuñu fuñ ko teg diggante bi am na ci benn euh, kilifa ji yoo xam ne ñu ngi ci réew mi ñëw na fi seet si leen. waaw ñi ma fi gis nag dugguñu dugguñu am na ñu ñëw mais ndox mi tamit mayu leen pour ñu egsi si nit ñi ba mën a wax ak ñoom te ñu nit duñu mën a génn bàyyi yenn bagage yi tamit ci biir dem di am na ñuy wax ak ñoom am na ñu fi jot a ñëw nag. gis nañ ci suuf ne ndox mi bari woon na fi lool lool sax foo ko takka weesu naka waa amu ci kenn ko ku ci am ay gaañu gaañu waaw boo dee xool boo demee tali njagambay foofu la jël bakken ci kàttanu borom bi looloo neex suñu borom mais fii moom ci ëttu bii moom yàlla dogal na dafa yàq suñuy matériel maanaam kon deseetu leen benn matériel da desewuñu dara barke sëy naa li maam desewuñu dara yóbbu na lépp waaye sant yàlla sant yàlla gërëm bàyyi laay lii moo neex yàlla. lan ngay wax nguur bi. Ah, xanaa ñu dimbali ñu rek nañ ñu dimbali rek ngir yàlla ak laay jàppale ñu ndax lii bu ñu dalul at mii at ma ca topp mu dal ñu nañ ñu dimbali wax ci tali bi nañ ñu dimbali wax ci tali bi wax ci rigol yi daw ci tali bi yàlla dimbali ñu ba lii bu ñëwatee bu mu bañ ñu dal ndax dañoo jaboot nag te jaboot ku ko dimbali ba dara du ko lor jàppale nga ka nañu jàppale ngir yàlla ak jëmmi yonente bi dimbali ngir yàlla ba lii bu mu amati